53 plus 47 muy 100 lii la cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibn Mamin am la tam koy am nak day jël téméré tour yàlla yi diko tarbiya diko tarbiya diko tarbiya 99 tour yàlla yi diko tarbiya ba yàlla may ko ben bu nekk doom mom cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibn Mamin mu dund 74 ans 4 mois 2 jours mom cheikh na cheikh Mouhamed Fadel ibn Mamin génn àddina ñëwaat ci àddina am centième doom oustaz Pape am Cheikh Cheikh Saad bu Cheikh Mouhamed Vadil nii la def dafa mhm. jur mhm. quatre-vingt-dix-neuf doom fii ci àddina mhm. moom bàyyu Cheikh na Cheikh Saad bu dee ba am un an ci biir bàmmeel di génn àddina di ñëwaat soxnaam di ànd ak moom ba jur téeméeri doom muy Cheikh na Abul Anwar. c'est pas vrai néew du bay ko bàmmeel di ñëw di di sëy ak ku dund bay jur ak moom doom doomu xaraam rek la bu ci kenn bu ci bu ci ragal doomi xaraam rek la du doomi yoon du dëgg du benn dëgg néew mënul jóge bàmmeel ñëw di di sëy ak ku dund waaw jabaram c'est pas vrai jabaram ba mu dee ba mu tëñ est-ce que sëy bi jeexu ku dee ba tëñ sëyam jeexu ku dee la jëkkëram sëy tëñ ba jeex ba génn sëy ba jeex sëy ba jeex na kon nag bu dee sëy léegi fu mu jëm ana ku ko takkaat ku ko takkaatal ak néew néew bi fan la amee wala si yére yu muy sol foofu ci bàmmeel bi ñëw ci fanaan bi ci lu tax bu fekkee ne fanaan ak juróom-ñaari at mu nekk fa ci bàmmeel mu def nu mu del bu muy dem ko yénu woon bu muy del ku ko indi bu muy demaat di taggu ba ndaw si def na seede maanaam ci karam bii deewoon juróom-ñaari at moo del ku ko gunge ku ko yénu wax ku ko sangu ku ko ko ku ko ko jullee c'est pas vrai c'est pas vrai bu fekkee ne lii mooy sëriñ maanaam mooy baayam sëriñ bi doomi njaaloo la y a pas d'histoire ku ci am sëriñ amuloo sëriñ loolu mu ngi nim sat ñu ne noonu la sëriñ bi amee kon nag ku am sëriñ bu mel nii sëriñ bi doomi njaaloo la Oustaz Assane bu ñu nee Cheikh na Cheikh Saad bu nag da ngay xam ni moom ak Cheikh na Mouhamed Fadil bokkuñu ci mais mais Mouhamed loolu nag bëgg naa mu leer dina leer nañ macha allah Cheikh na Cheikh na Mouhamed Fadal كان محمد فاضل ابن مامن والله كان دوموم ابو الانوار غني ابو الانوار دما لا امنا تيمير دوم واو 99 دوم لا ام تي ادنا دي بام 1 ان تي بير بامل ام سانتيم دوم واو اكبر نو دو خار خار خار دنت نانكو دنت نانكو جن ادنا بامل ген ادنا موم شيخنا محمد فاضل موم شيخنا محمد فاضل خير مو ген تي باميل مي ген تي باميل بي غودي التينيك غودي ادمو دي نيو تي سوخنام الله اكبر di ànd ak soxnaam soxnaam ni ko ngay def de neex na ma waaye bu ma sañoon nga ma ndax waa xawdu nee nañ mm-hmm. danga xaar ba nga génn may def lu bon te man du def lu bon surtout Seydina Muhammad laa sallallahu alayhi wa la ni yow lii ma ëmb yaa ma ko teg doomu njaaloo la ndax nit na mën a jóge bàmmeel ñëw di jura ku dund du njaaloo néew du njaaloo c'est kon nag na ngeen wax lu am bopp moo gën ngeen wax lu amul bopp te lii wax jangi banda bangi fii laajte yi mu ngi jóge rita tool mu ñëw fekk ma fii maa ngi denc banda bi ci la wax ji ne ñu ne sëriñ bi noonu la juddoo kon nag bu fekkee noonu la juddoo ba tax na ñaari fukki fan ak juróom ñaari weer koor bu nekk da ngay gis ñu bàyyi koo Sénégal bàyyi koo fale di dajale ay jigéen ak góor di dem foofu ci nim daat naan dañooy dem di ziar te ku fa mooy yàlla yàlla bindal la tiyaab maanaam loolu amul ku fa mooy yàlla ma nga jëm ku fa am doom e doom bi dana am barke c'est pas vrai ku fa am doom doomi njaaloo nget gaam ñu ngi foofu di jaay seen yëpp di njaaloo pour ñetti ñu ne yaay sëriñ bi noonu la amee woon doom ba am barkeel bi doom ba am barkeel doomee ra cëp billahi ñàkk fayda weesuwul lii billahi lii ku ci dee safara nga ci xanaa yéen ngeen di xelu xanaa yéen da ngeen juddu ne gëléem nampa ci mbaam bopp du am xel dana dana dund néew bu dee ñu suur la juróom-ñaari at ngay jël ci di ak jigéen yi di di fanaan ak ñoom bay piiral leen c'est pas vrai pas vrai lii kay gàcce la lii kay ku ci am sëriñ bu mel nii kay dama koy sànni ci àllaaxira dama ko ziar ba àllaaxira xanaa da ngeen